baarasani biraasu man yubaarisul muntaqa baarisa man yépp kuy lewtoog man yaa ngi lewtoog yàlla man ni loolu xadis yonte bi sans moo ko dëggal ndax yonte bi dafa wax ne ci xadisul xotsi ba fa wax ne képp ku mu noonu lu waliyu déclaré naa ko guerre man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi wala yasalu abdi wa ma taqarraba ilaya abdi bi cheyin ahaba ilaya mima iftaradtu alayh sama jaam nag mënumaa jàmmoo lu ma gën a li ma faratal ci moom ويعني ولا يسأل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه سوف جام بدن دماء جاين لجأنا في البنبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتس بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لما مسلم مسلم كوجي لما ñaar ma jox ko kon léegi bu suñu tubaane ku illoto ko ñaangi illoto yàlla leer na addis boobu def ko leer nañ la la jës nag mooy nun africain yi sëñ Thierno day faral di wax ne bëriwuñ bëri la wuñ boolewuñ bëriwuñ wuñ te boolewuñ boole si bëriwuñ bëri wuñ boolewuñ ñun africain yi loolu moo dal man nag léegi euh, dugg ci ay werante ak ay xulóog di sante ay tax mën naa ñàkk ci noonu noonu liñ manqué lu ñu war a lijjanti dafa bëri te nit euh, bu nitee day seet fam manqué mu jëm ko mottali moo gën dugg ci yoo xam ne kenn xam lu muy teg nit ki mooy defar boppam kenn du ñëw di la defaral sa bopp yaay seet sa yoon wi nga tànn yaa koy seet ba mu jub ci yow nga jaar ci dara bu boo tànnul sa yoon bopp bi ngay nit mooy ñëw tànn aw yoon ni la jaaral fii te xamu ba xam fu mu nit mooy tànnal boppam loolu it ba tey lu mat di bàyyi xel te it Serigne Touba dafa am lu mu jàngal dafa wax ne qultu wa ay ayya misdarat umusi atini li mu doon sa doomi bàjjen moo tax nga àtte nga xam daal bàyyiwuñ kenn daal loolu lépp nag di ko xam lu am solo la ngir nga xam ni yow lu mën a tegu ci sa der mbaa mu tegu ci der sëñ bi nga war ko mën a muñ loolu moo tax am na ku ñu daan wax juray ji bu yàgg yoon tamit dafa wax ne ñett ñi ma sa wax ci bi ñuy doon gone ñett la muy xale bi juray ji wax la woon ak Iisa Maryama ak nag euh, beneen xale boo xam ne ak jigéen ko yoroon léegi jure ji laa ci jublu wax sax dama ci wax juree ji dafa doon jàmm ko te daan beru ci àll ba di jàmm am jigéen ju bari caaxaan ju dinaa ko fexe ba moyloo ko yàlla dem di ko sàkku di ko sàkku juree ji bañ mu dem fexe ba jox boppam ab sàmm sàmm ba jaxasoo ko ba mu ba mu ëmb bi mu ëmbee dafa ñëw déclaré ni jure ji moo jur doom ji bu ko waxee nit ñi ñu nit la kii muy beru di jàmm yàlla li muy wax dara du ci dëgg dañu toj toj toj béréb ba mu doon jaamu. xarit dëgg yow bul defub tëddkat. ndegam bëgg ngaa def nitub tedd nga ndegam bëgg ngaa tedd bul tëdd yow te woppoo bu wér ndaxte kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti tey yeewu njël ku dul yeewu njël kat du jot cant ga na ngay yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàggu yi ngërëm nag ba jot noddu ga te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yeewu dem julli biddanti nga nelaw lekk wax néewalal yett yi te boo néewalee yett yi këtt nga nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dagg yépp daa def ba far ndomba defal nii ma wax mbaa nga jébbal sa mbir ka def nii ma wax kon ba tey wàcc ga noo ngi jéggalu mbokk yi di ñaan yàlla mu defal tawfiq jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu tabarakallah am na solo ngi ñaan gudd fan ak wér borom leen nit mën naa dem ba am ay milliards benn tibb ceeb képp du ko mën a jàllale benn pot meew képp du mën a jàll kon boo tibbee sàqan mi mu jàll war ngaa sant ndax da ngay bàyyi xel nit mën naa am ay milliards ñu dem ba àgg ci ñu jël kuddug ndox képp de ko ko sol du jàll kon boo mënee jël ndox naan bu màndee xeexat war ngaa sant yàlla daal koy génne ne ko yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam bañ ko sonal ba sonal ko mu ne ana xale bi ñu woo xale bi ñëw mu mu ne tëll xale bi ku la jur mu ne ko diw sàngam sam be moy sama baay ñu ne kon dañ leen tabaxalaat li nga dëkkoon ci or mu ne leen déedéet ba ban bii ma ko tabaxal ngeen koy tabax solo mu or bi waaw pour xam la rek ni maanaam loolu moom yàgg na nit ki nit ñi moom boo bëriwut ñu bari daan ci kaw waaye day am luy tax nga mën ko muñ Serigne Touba nag li ko sun borom defal mooy li alxuraan wax rek in yakfur biha haulaai faqad wakkalna biha xawman laysu biha bi kaafirin ñu ko mën a weddi dana am ñoo xam ne suñu borom baaxee na leen ñoom ñoom duñ ko sax nattab bi ma di ko weddi te it ku koy weddi mbaa nga dal ci kaw mbaa ngay wax benn baat mënoo fexe ba def ko lu ëpp la ko tubaab yi defoon mënti nekk bu dee doomi soxna ju ko mere doomi soxna ju ko di ko sànni étranger mënoo fexe ba def lu ëpp la doomi soxna yooyu defoon ba tax ñu yóbbu ko ci géej ndax loolu loolu fi mu ay pexe képp loon ay nit ñu ko gisoon kañaan jàpp leen ñoo dem jaxase ko ak la jës nag mooy nun africain yi sëñ Thierno day faral di wax ne bëriwuñ bëri la wuñ boole wuñ wuñ te boole wuñ boole si bëriwuñ bëri wuñ boole wuñ ñun africain loolu moom dal man nag léegi euh, dugg ci ay werante ak ay xulóog di sant ay taag mën naa ñàkk ci noonu noonu liñ manqué lu ñu war a lijjanti dafa bëri te nit euh, bu nitee day seet fam manqué mu jëm ko mottali moo gën dugg ci yoo xam ne kenn xamul muy teg nit ki moy defar boppam kenn du ñëw di la sa bop yaay set sa yoon wi nga tan ya koy set ba mu jub ci nga jaar ci dara bu mu la jaar way fi mu toll nii boo sa yoon bop bi ngay jaar nit mooy ñëw tan ndaw yoon ni la jaaral fi ta xam ba xam fu mu la jëmee moo tax nit moy tanal boppam loolu it lu mat di baye xel tayit serigne touba Tuubaa dafa am lu mu jàngal dafa wax ni qultu wa ayya mis darat amusi baara sani biraasu man yu baari sul mun taqama baari saman képp kuy lewtoog man yaa ngi yàlla ma ne loolu xadis yonent bi sans moo ko dëggal ndax yonent bi dafa wax ne ci xadisul xudsi ba fa wax ne képp ku mu noonu waliyu déclare naa ko guerre man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi wala yasalu abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahaba ilayya mima iftaradtu alayh sama jaam nag mënumaa jàmmoo lu ma gën a li ma faratal ci moom waaye nag wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafil hatta uhibbahu sama jaam dañ di جاكين لجاء في البنبكو فإذا عبدته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتس بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لما مسلم مسلم كجي لما نيار ما جوخ كون لغي بو سنتو اني كو ليتو ما نياغي يعني ليتو يال لير اديس بو ديف كو لير ناني لا جيس نك موي نون افريكان يي اتيني لم دون سدامي باجي موتا غاتي غا خام دال بايو نكن دال loolu lépp nag di ko xam lu am solo la ngir nga xam ni yow lu mën a tegu ci sa der mbaa mu tegu ci der sëñ bi nga war ko mën a muñu lool moo tax am na ku ñu daan wax juray ji bu yàgg yonte bi dafa ñett ñi ma sa wax ci bi ñuy doon gone ñett la muy xale bi juray ji wax la woon ak Iisa Maryama ak nag euh, beneen xale boo xam ne ak jigéen ko yoroon léegi juray ji laa ci jublu wax sax dama joxoon juray ji dafa doon jaam ko te yàlla bu daan beru ci àll ba di jaam am jigen ju bari caaxaan jun dina ko fexé ba moy loko yalla dem diko ko diko di ko ji bañ mu dem fexé ba dox bopum ab sam sam ba jaxasoo bam bam bam ëmbu mu ëmbé dafa ñëw déclarer ni jure ji mo jur dom ci ko waxé nit ñi ñu nit la ki mi bëru jamm yalla li wax dara du ci dëgg dañu toj toj toj bir bam doon jamm nit man na dem ba am ay milliards benn tibb ceeb kep du ko meuna jall ben pot meew kep du meuna jall kon bo tibbe sàqami mu jall war nga sant ndax da ngay baye xel le nit meuna am ay milliards ñu dem ba ag ci ñu jël kuddug ndox kep de ko ko sol du jall kon bo meune jël ndox naan bu mandi xexet war nga sant xarit deug yow bul defuk tëdd kat ndegam bëgg nga def nitub tedd nga ndegam bëgg nga tedd bul tëdd yow te woppoo bu wér ndaxte kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti tey yeewu njël ku dul yeewu njël kat du jot cant ga na ngay yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàggu yi ngërëm nag ba jot noddu ga te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yeewu dem julli biddanti nga nelaw lekk wax néewalal yett yi te boo néewalee yett yi këtt nga nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dag yépp daa def ba far ndomba defal nii ma wax mbaa nga jébbal sa mbir ka def nii ma wax kon ba tey wàcc ga ñoo ngi jéggalu mbokk yi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix jërëngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu tabarakallah am na solo lool ñu ngi ñaan gudd fan ak wér suñu borom kattanal leen daal koy génne ne ko yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam bañ ko sonal ba sonal ko mu ne ana xale ba ñu woo xale ba ñëw mu ni tëll xale ne ku la jur mu ne ko diw sangam sàmm bee ñu ne kon dañ leen tabaxalaat li nga dëkkoon ci or mun leen déedéet ba ban bii ma ko tabax ngeen koy tabax solo mu or bi waaw pour xam la rek ni maanaam loolu moom yàgg na nit ki moom nit ñi moom boo bëriwut ñu bëri daanu ci sa kaw waaye day am luy tax nga mën ko muñ Sëriñ Tuubaa nag li ko suñu borom defal mooy li alxuraan wax rek in yakfur biha haulaai faqad wakkalna biha xawman laysu biha bi kaafirin ñu ko mën a weddi it dana am ñoo xam suñu borom baaxee na leen ñoom ñoom duñ ko sax nattab bi waxuma di ko weddi te it ku koy wedd mbaa nga dal kaw mbaa ngay wax benn baatit mënoo fexe ba def ko lu ëpp la ko tubaab yi defoon mënti nekk bu dee doomi soxna ju ko di ko sànni étranger it mënoo fexe ba def lu ëpp la doomi soxna yooyu defoon ba tax ñu yóbbu ko ci géej gi ndax loolu loolu fi mu toll ay pexe képp la ay nit ñu ko gisoon kañaan jàpp leen ñoo dem jaxase ko ak